mbok yaa billahi samil ali min seytaan rajim ñoo ngi am mbégte bu baax baax di santal yalla julit sang sang-sangi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam sant seelu khadim sunu Ambek timu ëllëg am mbégte mu baax baax wat ak yeen ci seen jotaay koor di am mbégte di nuy mbolam ko xamne mi ngi xel jotaay ñu leen amal tey rek ñu ci suñu fukkiilu jotaay ak juroom ñett bëgg a waxtaane yi nga xam ne ay wala suñu borom di ko jox jaam bi waaye da koy xañaat moo tax wolof di wax ni yàlla mayewul lay able moo tax suñu tubaab di la jàngal ne am na juróom yoo xam ne suñu borom dana la ko may ci benn benn temps waaye xañ la ko ci yeneen jamono amul kenn koo xam ne da koy da koy da koy moom à vie kon dénk la jamono bi la koy dénk rek dafa am la ci def loo moo tax suñu tubaab diñu jànga ya waktu waxtanimul xamsa waxtanimu xamsan xubaylal khamsi kama bihi amara khairu insi Dan ne ya suñu tubaab ne na nga màng juróom comme ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam digele, digale nga gi mu ne alayhi afdalu salaat bi salaam fi alihi wa sahbi xurril kiram sëriñ Tuubaa xaadim rasul nee na juróom yooyu yi nga war a màng yi nga war a sàkku njëkk juróom yan la nee sëriñ Tuubaa nee na awaluha sababu xablal xarami xablal hërami wa misluhu sixatu xablal shaqami sëriñ Tuubaa nee na yow ashabaab waxambaane bi ñu daal neen nga far jaamu yàlla sàkk oyu def lu baax ndax kàttan gi la yàlla dénk màggat moo ci topp kon bala ngaa màggat fexeel ba góor lu bu baax ci yi nda yi kàttan di jariñ muy ndaw muy jaamu yàlla sàkk fàggu alal toppatoo say waajur jëf lu baax def ko bala ngaa màggat ndax saa bu fekkente ne da defoo ko su màggat ñëwee da nga koy rëccu ndax da nga suma te fekk nu ko wolof di waxee su ma yëgoon romb na di jàll waaye Sëñ Tuubaa nee na wérit bi nga koy def nga góorgóorlu ci jëfandikoo li wér di jariñ njëkk ngay wéradi ndax wéradi ngi ñëw mas masalan dara mettiwu la sibruwoo feebaroo dara jotu la mën ngaa jaamu yàlla del góorgóorlu ci jaamu yàlla ndax comme ni ni ngi ci koor gi rek tay ji si bro woo defoo dara suba mën naa nga febar baña wor kon bis bi nga xam dara de waral ndax bis nga ngi bo xane man nga ko baña baña te man boba nak defal nga ko bi nga koy man ndax mom wera di wer go gis wér di mo ci top kon mooy yoy moy ñaare suñ tubaa ne ñettel bi nak moy salisu hal u qabla faqri al faraaxu qabla sukhli yasri suñ tubaa neena ñettelu yooyu yooyu yooyu le juróom moy nit ko am kom kom su la ko yalla dénkee nga xam da ngaa yoon xaalis yore jikko yaram lant ku ci kam nek na ci am moy tax boko ñaké yalla da la wut ko lako jox waye bis bu la yalla joxe alal nga nga ti denc ko ba faatu ñew dañ koy doon kën du la ci sant waye la timit buy ya ci aju muy genn asakaay yoy defoo ko suñu borom day jek jek jël ko kon yoy yep ay yef la yo xamne ne bi ngay womal gëmal ne am ko yalla xagn te jambar te yaafus taxut yalla xagn ko yow mi la yàlla may njàmbaar taxut yalla may la kon dal kom kom bi nga yor bu ëppee ci soxla rek wàllu jàmbur a cee nekk bu ci walam nek la ci jot moy ki laaj moy ki laaj te war ko dimbulé uh, ak ki nga xamne ne uh, moy la askan war ko jox yoy yep waye so fexé nga xamne ne occupé wo niko wala wolof di jabar laaju doom jooyut dara occupé wu la lii la yàlla soxla mbokk yi taxaw ci sa kéem kàttan bu fekk da ngay sàq xam-xam gëmal ne bis dañ ñëw nga ñàkk temps dootoo mën a sax xam-xam su fekkente ne dangaa am kàttan di dem ci nit ñi di jokk bokk ak def lu baax bis dana ñëw nga tëlee ko yooyu yëpp ak féex la waaye ay soxla dañoo taxaw sa kanam boobaa nag yooyu yëpp day deñ kon balaa yooyu ñëw mbokk yi dangaa war fexé ba li li yoy jariñ nga def ko kon suñu borom dana la bala nga agat ci di comme nim ko waxé ndaw nga bala nga magat da nga def li nga wara def wër nga bala nga wop da nga def li nga wara def am nga alal bala nga ko ñak da nga ci def li nga wara def am amo yenn soxla bala nga ami soxla da nga def li nga wara def muy yi bu ci nekk safaan bi day ñëw suñu borom daf ko daf koo dénkaan rek waaye mayu ko kenn ndax lu yàlla lu ne yàlla da koy jëlee ci nit rek bu ci nit su ko defee bu la ci yàlla jox rek jàppe ko ak xéewal te xéewloo ko ca na ko suñu borom bëggee mooy tax boo ko ñàkkee suñu borom du la teg tey gi yenn daan wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu